oh. du safara la. bari na ca de. bari na fi. ñoo ngi nii di dem. donc gis nga góori Sénégal mhm. am na ci ñoo xam ne foog nañ ko woon war nañ laa takk. très bien. bu romb sax li gën a dangereux bu aw béy bu romb sax du seeti ko. ba tax na da am jabar ju mat boo xam da lay seetaan rek. ngay def fu ne ko nga mën a toog. walaay dëgg parce que tànk bu toogul dëgg dara. te gis nga nit dafa war a am mesure. nit du luñ la mi ngi mel ñu tegee la palaat teg ci ñam ba bu fees c'est pas parce que dañ la ko tegal ku lépp nga war a lekk. déedéet. nit dafa war a am mesure gis nga ni doo topp sa nafsu. woykat ba wax na ne topp sa su lu ñaaw la. bakkat dañ koy teeral am foo ko yemale. ceene ko wut foo ko yemale. mais xam nga ni bu dee yow ku la romb woddu nga ne naa seet nu mu mel boole koog sa jabar say jabar boole koog ñi ngay takkata ko suuf boole koog ñi ngay nekkaaleel leen wutal fu nu nekk leen fa fekk. mais loolu jigéen toog di ko enduré mais loolu moo gën a métti sax ay duma. Mm-hmm. foo mu ñu ni jëkkër moo kii fii la jógee léegi mi ngi nii fii la toogoon siis bi mooy toogoon wala kër gee la génne. Mm-hmm. neexul parce que tey imaginer sa jabar nu mu jong maa ak nu mu mel. te ba léegi mënoo ko dab ci du tuuma. Oh. te bu du woon ak nett lu neex waay def am na ñoo xam xamante dañu sóor seen deret njaboot gi ñu bokk mm-hmm. fi ñu bokk fi ñu juddoo wut seen askan ba tax na am lu ñu privé seen bopp daggal ko ci yow mi góor na nga ne kër gu ne nga taxaw fa nu ma wasi ne keroog àttine mais bakañ. bakañ ah, bakañ. yor benn soxna bu ko ngelaw lu romb. yow nee nga sa baax na yemoo ca yaa ngay xool keneen koo nopp te gis nga góor ñi bilaay man gaw ma ne sax nopp nanu. Hmm. dañuy xemmem nag nopp am na gaw ma ko. dañuy xemmem ah, ndax ñoom dañu doon mel ni. dañuy xemmem. turka dañuy xemmem. ah dañuy hmm. xemmem. ah waa xemmem tigi ba am ca doom bu am ñetti at mais doo dem nga wax ak ay bokk sa jabar. walaay ndeysaan kon Euh, mais mais mais mais problème mooy euh, euh, takku suuf maam maam Sidi bu téléphone bi kii rek ma problème mooy takku suuf man Serigne maam siidi Diop moom laa yaakaar te gis naa ni def na ko. Mhm. imam Bakary laa gis ni moom laa yaakaar ci wàllu diine te gis naa ni def na ko. Mhm. comprendre mhm. oustaz Ibrahima laa yaakaar ci wàllu mu di ma. firil di ma waar ci moom gis naa ni moom def na ko. manit ma def ko. ñu bari loolu ñu ci dugal du ah. yoon nag du yoon nag. la la ci jik xam nga li ñu naan euh, la ko ci jik. sama est-ce que responsabilité dina doon benn. te du benn ñoom ak man la ko ci jik jigu la ci. lu tax lu ko ci jik moom. lu ko ci jik moom moo di moom xam nga xamu problème mooy. dafa dafa mel ah lu ko ci jik parce que moom xamoo moom. fu mu maanaam déedéet maanaam moom xamoo euh, léegi moom léegi moom léegi Imaam Ibrahima bi mu takkee moom est-ce que takkul euh, am am màgget lu tax. est-ce que takkul am màggeel ak takku suuf bu dee waaw takk na ko am màggeel takk suuf mais takk suuf am màggeel tey takk na ko baaxul moom mais màgget ma dana am doom. du doom amul doom yow nga dem takk ab jànk yow. kan moo gën a bon la ci yéen ñaar mooy toujours bul ah. ñun ñaar ñëpp ah yaa am ñetti doom ci takk ka nga takk takk suuf. moom amagul doom am màgget la takk. ah kon moom soom la topp dem na ba gànnaar wala dem na ba Maroc gis fa am màgget kii mën mënta amati doom. mu ne ah jaruma koy xoolee dëkk bi naa ko takk takk na ko ma ngay bànneexu léegi amu fa doom màgget la yow nga dem takk benn xale ca Maroc am fa juróom-ñetti doom te waxoo ko dëkk waa dëkk ba. xam nga kon bokkul toujours mbir mi bul xool diw Sénégal ñu xool diw def na nangam bul xool diw nangam gis nga mbir mi la oustaz ba defoon rek waare ba pare ñëw jaaxaan dinaan sàngaram xa janq ji wër ko ñu bett ko mu ne leen waxu leen waxu waxuma leen li may def man li téere yi di wax téere laa doon nettali mais li may def lii laay def man mu ma ko laajee ma wax leen ko gis nga nit ki bu defee dara mën naa am sax moom euh, kii na ko jig na ko yow sa yoon bu mu ci waaye jigéen ñi nañu am fulla waaye tamit góor ñu fekk ñu suul yi ko mu ñëw ñu indi ñaare la mu toog aawa bi ndaw néew bu soof ndaw néew bu soof bu ñàkk xorom ndaw néew bu wayee di mhm. ndaw néew bu ñuy xas la ñaanal sa jour la ñaanal parce que ñu lay jëw a jëw ba kenn ko ñaan may ko mu toog suturaale sa jëkkër xoolal sa doom yi may ko mu ñëw toog nii rek bu pare mu ñibbi këram nangam nangam kooku xol ba di dagg te mos koo xam nga indi ñaari doom yoo xam ne bu leen ne jàkk xam ne ñii seen bàyyi leen jur te la mhm. yàlla na yàlla dolli sutura gis nga boo takkee jabar ba nëbb ko ba sa zuuru dëj ba sa zuuru dëj waaw zuuru dëjëm moom waaw zuuru dëjëm ba waaw billaahi yàlla la say xarit di la fàttaliku di la ñaanal mais say doom dañ lay jéppi say frère te yëguñu ko dañ lay jéppi mhm. euh, jabar ji la war a téeñ di la ñaanal da lay jéppi kon néew la boo xam ne dañ koy jéppi ci bo mhm. nga am doom di ko nëbb di ko nëbb ba ci jouru dëj bi mu ñëw di jaale si baayam wallahi di nga xoolal dañ néew boobu dañ koy jéppi maam mhm. siidi yàlla na gudd fan mhm. bu faatoo jabar ji ne nekk téléphone bi gis ci loo xam ne foogee wu ko ko woon. waaw njaga nag ku dee ba pare looy doy téléphone xam nga tam nag li war a wax itam waruñu ko ah, téléphone ah, mais non ñi dee ñëpp seen seen waaw non mais njaga ah. ñi dee ñëpp téléphone yi seen jabar yee ko yor mais njaga ñooy wuyu de wedduma loolu waaw imagine ngay wuyu ba gis ab audio buñ ko audio wala moom mu audio benn waaye nee na xaritam bu ma benn waay nee na xaritam bu ma dee njëkkantal sama téléphone ci teen koy dugal ci teen waa ji dafa ko ne ko xaritam bu ma dee man sama xarit wax na ma ko ma dëkkal tël sama téléphone daf ko ci teen Maguette Ndiaye nee na ma su ma deewee yow bu lijjanti bu nit ñi di jooy njëkkan <laughs> lijjanti sama téléphone fan la ne <laughs> gis nga <laughs> maam ah, si sama benn xarit nee na ma bu nit ñi di jooy yow dugal ci néeg bi lijjanti fu téléphone bi ne loolu ma Maguette Ndiaye non si teel a gis téléphone mais xam nga nag ku dee la taloo dara dul di xool téléphone uh-huh. loolu tam mm-hmm. vraiment gis nga gis nga jàgga loo téléphone bi bu ñëwee rek uh-huh. loo seet gis ko loolu la am daj dëgg la gis nga nit da war a am loo privé sa bopp mooy wuti wuti naqar. Mhm. am na ñoo xam ne naqar du ñëw ñooy dem wuti naqar. dëgg la ubbi ay téléphone làmb ay poos xool ay saak da nga ca gis soo xam ne dootoo ne la guddi. bu dee amee. man gis naa koo xam même bu dee ah, am gis naa koo xamante ne dafa mës a jël téléphone jëkkëram mais gis na bi ñu koy wax ndaw si gis na ci loo xam ne mënu ko wax jëkkër ci parce que buggul mu xam ne moo ubbi téléphone am mhm. mais mi ngi pët pëti ci kër gi mais li mu wax mooy comme moom moo ko ubbi ba gis ko rek lu mu ci gis mu koy rey affaire am man l'essentiel du ma interpellé. loo fay wuti. talal sa bopp. gis nga jigéen ñi bu nu yeew woon benn góor dootu leen rey. boo talee sa bopp rek am jàmm. fexee defaru waaye bàyyeeku too defaru talatoo solu talatoo togg lu baax talatoo lekk moom rek ngay di jënd fu mu toog dugg na ca biir xool bu duggee kii ma xool di yëru lépp yooyu manqué. yooyu manqué manqué quoi. manqué hmm? te góor boo ko talee da leen a xaral. waaw boo ko talee di ko foo ne. ci lan nga nekk ci béggoo wàcc ah. goo ba léegi. dara njaayul dama am réunion. maa ngi ñëw yàlla na ngeen nga ko foo nekk yow ba <laughs> nangu woo wax. dara njaayul génn parfum parfum bu neex. demul fenn kat ñoo ah. <laughs> ah, nekk réunion télévision. te dem dem ah dina fa dem parfum daal di gént demul fenn waaye boo ko faalewul doo mën lijjanti quoi doo wax ci doo wax ci lu ma nekk mais gi dara waaye di ki nangu ñu takku takku suuf. Hmm. ah ki takku suuf say kilifa danañ danañ la maye. wala dañ ko dul yëg ma ma xamee benn affaire parce que da jël ay pas indi leen xam ñen ñoo njëkk naa feeq wàllu takk suuf ñu ñu takk ñi ñaane ji non dafa am muy ku mu mën a doon mm-hmm. man su ma dee wax Sénégal laay waxal mm-hmm. damay takk-takk suuf euh, Adja mm-hmm. su ma dee ñëw samay xarit lay àndaale uh-huh. ñu di fa añee di fa reeree ndaw si di leen di leen daggal ti si di leen jox bu ngoon jotee ñu delluwaat kër aawo ba naanee fa attaaya di ko xool xam ne ñoo ngi jógee fee te waxuñu ko ko ñooñu kenn gënu leen a naafee yenn saa yi ma takk takk suuf mm-hmm. ànd ak samay taalibe mm-hmm. yenn fa am fa ñetti fan mm-hmm. delluwaat sama kër samay so taalibe yi xam nañu ni man am naa tafee takku suuf te waxuñu ko waa kër gi moo tax toujours ñi lay accompagner ñoo gën a ñoo njëkkal naa ëllëg bu dee amee ñoom ñooy gënaat ay aaya di waxtaan naa ko dakaa mënutoon a wax mais dañoo demoon wax ma moo nangutoon te am na ñoo xam ne takk nañ ko seen jabar bu yàgg seen jabar ko seen xarit nga defee ni kenn ko fekk ñoo ngi lay yóbbu marché am na koo xam da ngay takk ba am ca doom mu yëg ko di patt di la xool ba nga takkee la ko yëg di la xool ngay ngénte ko nëbb te loolu ci doy di la bokk yow mën nga sa bopp kay affiche toi neen man kat man am naa jabar boo mënee takk fukk takkal. Mm-hmm. mënatul tànk bu boo tànk bu taaliwul dan dan dana taali mbaa moom dam walaay dëgg la walaay ndeysaan bis dana mës a ñëw boo xamante ne li nga bëggee te loxo doo ko mën mm-hmm. su boobaa da nga daje kun mi nga xamante ne kenn rëccu ko da topp sa bakkan ne ci la neex bis dana ñëw mm-hmm. moo tax ñu bari dañ lay seetaan rek am fulla ak fayda ju toll nii dund seen dund tal seen bopp toog di la xool loolu def baax na heure boo ñëwee baax walaay dëgg la waaye kaas duñu xuloo da lay bàyyi rek waaye da la mel yëgul yëgulul li nga def waaye gi ci jigéen ñi tamit bëri na trop waaye gi ci jigéen ñi waaye gi ci jigéen ñi moo ngi seetaan maa ngi lay ziar bu gis nga te en général gis nga njaga mhm. jigéen day xam boppam jigéen du bon waaye jigéen guy xaw a bon rek bu xaw a wala jigéen goo xam ne ni xamul boppam rek wala jigéen ju ba maam ci waxin la jigéen du ba du bon waaye jigéen bu bon rek jar na 5 millions boo koy takk mais looy takk ji jigéen ju baax ba pare di ko nëbbu say mbokk du ko nëbbu seen waa kër di nëbbu jël ay doom di ko nëbbaat yow ñu nëbbu la nëbbu say am na ñoo xam jabar jëli ñuy bay nëbbu seen yaay dañuy ànd seen yaay ak seen i jigéen ñu fay dem ñu leen di tere ñu ñëw ni ah, ah, ah. am na kër gi ne xam ne yëg nañ ko ñoom ah ba ñu nëbbu naa fekk duñ nëbbu yaay duñ nëbbu keneen mais tamit ki nangu takk suuf mooy kan waaw mooy kan ki jigéen ki nangu takk suuf du ko nangul Pape Ousmane Gueye ndax yorul ab 4 4 du ko nangul ku yor ab saret ci koñ wala watiir borom xaas bi lañ koy nangul dëgg la kon ñëw foo jigéen ñi war a jot ñu xam seen bopp duñ ko nangul ku yorul mukk gis nga dëkk boo dem poussière daal di wàcc ceeb sareet say dàll cerax nga takk ripp bëgg fa soxla ñaan la xale yi dañuy jàngi école dëgg la appareil guñu nga yor kat kat daal di wàcc ñu la takkal ci xale yi mbokk gi kenn du ko tasaare ñu la jigéen ñi ngeen la xale yi dañuy yow yow mi war a takk yaa na xale jàng ñu la njàngum jigéen soriwul képp kuy takk takk suuf fii ci réew fii mën nga sa bopp waaw mën nga sa bopp. alors eh, de moo ci ëpp. ah kon kay jeex na ñu mën seen bopp kon intérêt tax kon ku jigéen ki dafa jël intérêt ko. yàq boppam yàq doomam nga naan dama am yëg-yëg. dafa yëg dara. waaw ah, loolu la wax de yëgul dara nga def du diine ñu naan doo ah, yëg-yëg laay ah, waxee. waaw te caay-caay gi ci nekk moo di caay-caay gi ci nekk yow nëbbu nga nëbbu nga sa ngor nëbbu nga say doom ak yow sa bopp alal te teewul tamit ab wuyu en général ñoo koy def. Mhm. te moom mën naa caaxaane ji ndax xaaju kër la yor day caaxaani ji waaw xaaju jëkkër la ah doo fanaan si ko nangu sax moom aussi boppam est-ce que way nag am yambar lay am koñ bi ci koñ bi boo fa doxal mu fekk ñu koy maaso looy wax xaaju jabar nga yor nga yenn tax mun mu nangu bee mm-hmm. tax mais day am benn yambar ci koñ bi même sa xarit yi lay takki seen sax mënuñ laa jàppale sëy bi ci sëy bi Euh, saxaar yi ñaan sew mën na la jàppale sëy bi ci sëy bi parce que da nga xam ne ndaw si xaalis rek la gëm xaalis la gëm da ngaa làq sa jabar làq si sa doom say doom bul jàpp doomee jurde yaa yaa ko jurde yow ngénte rek yow tey joxe yow tey joxe ngénte rek yow tey joxe tur waaw doom yu xarit sa mënuñ kaa da nga la làq la rek démb barki démb altine ni la bari na ku ci am ja doom doo nangoo joxe mukk sa carte d'identité parce que am na doom yu bëree bëri bëri taq suuf ba léegi amuñu extrait de naissance waaw waaw parce que foo joxe sa carte d'identité commencé ngaa feeñ. yaay waaye di bu bu kii ba jotee mirage ma jotee doo may kii du baax. bilaay wallaay. Adja Sànq Adja euh, Sànq euh, euh, ci ci ci juróomi minute yi ñuy des damaa bëgg nga wax xale yu jigéen yi. sànq dugg nga ci waaye xuus ci. xam nga loolu responsabilité des parents la. man su ko ak yi jërëjëf. doom daal comme juróo ko yaa comme juróo la yaa ko jur. war ngaa mën a am ful lay wax ko li nga bëgg mu def ko. dëgg la man daal bu fekkee li ma bëgg mënoo ko li nga bëgg man dama la ci fekk si. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que doom moom maa la jur juróo ma maa la yilif yilifoo ma mhm. mais amul benn autorité sa doom ko foo gis ku ko nangu amul autorité doomam